accident bi maa ngi ko fekkee suusu ci tali bi ndax dama taxaw fii ci trottoir bi sama man ak sama benn client léegi ñuy wax ñuy waxaale ma war ko yóbbu ndax man euh, fan yi ci cag-cag bi laay liggéey ma yor fii benn moto léegi ñu taxaw fi ñuy waxaale suusu rek ci laa jékki-jékki xool a trente lu tolloog trente yàggul soriwul ma gis ko muy rajaxe fële ci taxi bi mu jël borom cag-cag bi ñaar lan waaw fii ci pont bi nii rek ci pont bi nii la ko jëlee après bi mu ko jëlee ñu ñëw ci la jël taxi bi après def en face mais chauffeur bi bi mu jëlee taxi bi ba pare au lieu que mu bës oto bi mu taxaw mais dafa gën a accéléré léegi ci laa xool man ak client bi tata bi def en face ak man ci moto bi ci trottoir bi léegi ci laa bàyyi moto bi mu taxaw mu damaa sànni moto bi mu daanu ma avancé na ci la ñëw jëlaat moto bi encore trois roues bi ci la ko jëlee trois roues bi dal ci super bi après supeer bi même borom trois roues bi am na ay blessures mais sapeurs yóbbu nañ ko. taxi bi moom ci li information yi ma jot kenn moo ci newoon dégg naa mécanicien moo ko doon dawal. waaw taxi bi waaw ci information bi ma jot. non amul bi dafa génn daw moom avant kii bi mais dégg naa gaañuwul moom amul benn gaañu gaañu waaw. ah dégg naa daal ñu ne en tout cas daal moom bi mu jëlee ñëwee ba pare moom dafa gën am vitesse moom xam naa dafa perte contrôle xam naa loolu lay doon rek. chauffeur bi gaa yi yóbbu nañu ko mais mi ngi taxaw fële ci pont bële ci kaw. gars yi yóbbu nañu ko. amul benn mort amul am na deux morts. waaw ñaar ñi newoon ci moto bi moom sur les coups dañoo dañoo dañoo dese moom. waaw ñoom ci tali bi la leen jëlee ci dëgg tali bi la leen jëlee waaw. ñu ngi woon ci yoon bi doon ñëw dañu doon daw ci route na ci route normale bi nekkoon doon daw de. kon accident bi ak accident bi daal moom lenn kese la muy tata bi. daal mooy yor vitesse am perte contrôle am di mbëkk di dem loolu mooy accident bi. dégâts yi ngeen gis yëpp Tata bi moo ko def waaw. ok merci dafa dem ba ci pont bi fële foofu la taxawee. Hmm. yan euh, li waaw accident yi daal li ñuy wax mooy Tata yi ñu dimbali ñu ngir yàlla ñu seereel ñu ko comme ñu ngi leen di jàmbat ñu ci bari ne nañ màgget nan wala boog seen i frein baaxatul yàgg nañoo daw ñu xool Tata yi nga xam ne méngoo na ak jamono ñu bàyyi ko fi yi nga xam ne waratu ñoo daw ñu génne ko dëkk bi waaw ndax instant bi accident yi bari na nit ñi sonn nan xam nga fekk la nga gaare ñu rey la xam nga tamit loolu amul benn njariñ waaw ñu ngi ñaan daal état bu bees bi ñu jël ci ay mesures yu diis waaw. wax dëgg yàlla moom ñi borom cag-cag moom wax ji bari na ci ñun lool lu nekk ñu ñu koy wax mais man soog yi may gis yëpp dañ ñuy tooñ. amaana nag ñun amuñu sécurité amuñu doole mais dañuy tooñ dañ lay fekk ci tali bi mbëkk la ray la waaw. ci ay jeunes lan moom. ay jeunes lan moom du ay mag yooyu moom waaw ay jeunes lan waaw ay jeunes lan moom. ok nag li tax ma jàkkaarloog la presse mu am benn cri de cœur boo xam ne xam naa ne danaa ko tëje mais solo ji mooy tey li nga gis muy tiis ak naqar bi nga xam ne dal na ci kaw ñun ñi nga xam ne ñun ñooy dawal moto muy fii ci foire en face. Euh, gendarmerie foire ñu fekk fi benn tata moo xam am na frein wala aw mu rey ñaari innocent kenn ki mu reye ko fii ka des mu xëcc ko ba ci booru domaine muy lu ñaaw biñ ma informé ma ñëw taxaw wax dëgg yàlla gis di ko jaale képp koo xam ne nii euh, sénégalais nga waaye képp koo xam ne aussi da ngay yëngu ci wàllu moto. Euh, non actuellement nii ci identification lañ nekk dañuy dem pour yi fa ñu nekk.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 sénégalais bu ñu ko fayee 1000 francs mu di déet c'est noble donc loolu mi ngi indi loo xam ne état na ci jël maa ngi leen di lu doy waar état na jël responsabilité am ci lii nit ñi mënatuñu am oto bu baax dégg ngeen information bu yàggul commissariat jëppal booy bu fa dóor taximaan casque mu décédé donc man damay dawal moto mais nous disons noo état na jël responsabilité képp kuy dawal moto ñu miite ko d'abord nga sol casque livraison bi ñu koy wax waxuñu woon pour nga jël nit di ko yóbbu mooy jël benn objet fii yóbbu ko feneen mooy vrai sens du mot de la livraison loolu mooy livraison mais yëpp nit ci autoroute bi solo ñuy casque di daw san à l'heure jël moto futti ko mu nekk yaxu kese nekk feeraay fu la laal nga dam boo demee CTO li fa nekk ci dawalkatu moto yu ñu entretien yëgu leen ko c'est extraordinaire donc l'état nañu dimbali si Bassirou Diomaye vous êtes jeune nous sommes jeunes comme vous ñu ngi lay ñaan pour la première fois au Sénégal ñu toog waxtaanee su mënta ñàkk parce que da nga ne sur l' emploi des jeunes bu mënta ñàkk ba ne nit ñi dañuy liggéey mooy kenn ku nekk ñu identifier la wutal lay plaque nga sol gilet nangam nangam su mënta ñàkk. franchement ñaaw na c'est trop c'est nit ñaa ngi dee am na sax loo xam ne duma ko wax ci télé mais doomu njiitu réew mi fi nekkoon gis ngeen mu joxe fi ay 1000 jakarta jox ko ay booy kooku bokk na ci li yàq réew mi waaw bañ naa tudd tërëm mais gis ngeen. waaw bon voilà euh, accident yi kuy jakarta yi. maanaam mooy capitalu Dakar laa bëgg. actuellement ni ñu génnee fii li nga xam ne mooy moto yii nii nii su mënta ñàkk. ñu wàññi ko boog wala ñu valeur bon voilà ñu seet benn waxtaan toog ci table ronde waxtaan waxtaan quoi xool la situation parce que mënta ñàkk nag man damay dawal moto am na ñoo xam ne dañ ciy dawal moto am na ñoo xam ne ñu ngi ci am seen teraanga quoi mais ñu xoolaat booy seen i mentalité waat leen wax dëgg yàlla les forces de l'ordre aussi def seen liggéey dignement parce que Sénégal dafay mel ni ñun amuñu ministère de l'intérieur kii fi ñëw nag c'est général donc ñi ngi koy ñaan moom xam naa ne par rapport ak ñi fi jóge woon c'est des civils moom comme c'est un général te corps habillé la xam na nañu woo ñu toog waxtaan wax ko secret bi wax ko naka la ñu mën a def ba accident yi wàññeeku wax dëgg yàlla.